artisanat ne gétt gi xel yëpp day daagu dem ci ki nga xamante ne mooy Mbàkke Faramaren ah ku xam gétt gi ak dak artisanat Faramaren bi moo koy def bu mag bi macha allah loolu defe naa ne chaque semaine lay am kon da ngeen ñuy xaar foofu rek biir Dak Médina mbokk internet Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee tey nag euh, Dak artisanat dafa ñëw fii ci Médina rue 29 angle 20 Sadji Dieng création Dieng maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatulah. allahumma salli ala badri salaam allahumma salli ala nuuru salaam allahumma salli ala miftaah badri salaam waaleykum salaam wa rahmatulah. waa Dieng ginnaaw bi ñu dalalee euh, kan mooy Dieng. benn euh, jëmmi doomu aadama la bu xeebu. Mhm. dëkk Diourbel ñu gën ko xam ci njaareem. Mhm. Euh, nekk fii di liggéey wàllu cordonnerie Medina bi. Mhm. njëkk bi mooy fii nag maa ngi njëkk na nekk fii 15 angle la foofu laa nekkoon. mais Dieng bala euh, bala ñu ñëw ci coordonnateur bi Dieng lan la ñëk def avant coordonnateur bi. jang dara mhm. ak bay mom la def ba bi may joggé fi ni ak teug weñ gu ñul ay sareet ay machine ak yoonon mo ci lool la judd fek sama papa diko def. Mhm. ma nekk ci après su nawet jotee ñu dem bay ak bo def jang dara lool nga ñëk def. lool nga ñëk def euh, machallah est ce que coordonnateur tamit mun nañ xam ban ana nga ci dugg. entre 97 98 yaakaar naa côté yooyu daal la. 98 nga ci dugg. waaw yaakaar naa côté yooyu la. Euh, ku la jàngal métier bi jàng. sama nijaay sama rakk papa moom la jàngal sama rakk yaay moom la jàngal métier. Mhm. ñu koy wax Saliou Ndiaye. ñu koy wax Saliou Ndiaye. Euh, ban dëkk la la jàngalee métier bi. Dakar fii la ma jàngalee métier rue 27 kër Alaye Ndefal. Uh-huh. foofu laa wàcc bi ma dikkee Dakar. bi nga dikkee Dakar bi nga dikkee Dakar nekk rue 25. Uh-huh. en face salon. Euh, ginnaaw bi mu la jàngalee métier bi est-ce que mën nañ xam tamit ñaata at nga def ci métier mi pour métier mi mokk. man lu yéeme ci àdduna moom moom laa def ci métier mi. muy lan jànguma ko at. est-ce que. sama morom bu nekk Dakar yaakaar naa su ma dàq daw dàqamaa ñooñu ñëpp dàq bëriwul de. ah kon loolu bu ma ko déggee def naa don wala mayu yàlla la. mayu yàlla la ak bi euh, may dikk dafa am lu ma indi lu ma lu ma jëlee woon Diourbel. muy lan. sama papa dafa gaañu. Mhm. ñu nekk situation yu doy waar. ma ne sama yaay bàyyil ma bàyyi jàng. Mhm. dem jàngi métier. Mhm. parce que maa la war a yor yor samay woon nag mooy dama dig sama patron bi bi ma dikkee. Mhm. nekk fi ay quelques fan. ci laa gis sama morom nekk foofu noonu doon liggéey ay dàlli xale. man ma ne ko soxla ma dàllu xale dàllu mag laa soxla bu gaaw. ndax dama yàkkamte woon quoi. kon daal ni ma ko déggee da ngay yàkkamte woon métier bi. waaw yàkkamtee gaaw man bay yor sama bët yor samay waajur. ah say waajur nga ci njëkk a sëntu. waaw. kon mhm. mi ma fi ñëwee yaakaar naa nekk naa fi lu mat huit mois. huit mois neuf mois bi ci la tombé korité. Mhm. sama ndijaay na ma kaay nga dem korité ji ma ne ko mënumaa dem. Mhm. bàyyil ma joxe li ma yoon nga dem jox ko sama yaay. mu xottal ci xele yi jëlal leen ci ay ensemble li ci des mu korité ko. su ko korité man après fii ak su ma jàppandee mu mën a mu mën a ñëw njaareen sama ndijaay léegi ndekk loolu moom loolu ma ko wax daa génn moom di jooy. ndeysaan làqu du jooy parce que moom sama rakk yaay la te mu waroon na yor sama yaay te mhm. mënu ko yor ndeysaan mu génn jooy ba xolam sedd mu dikk ne ma ne ma Assane ma ne ko naam mu ne ma demal nga wooy sa rakk papa nekk ñu mhm. koy wax Baye Tafa Fall Baye Tafa Fall ak Baye mhm. ma dem wooyee ko mu ne lan la mu ne dama la bëgg a ber ndeysaan parce que jom ji nekk ci yow nii fi ñu toll nii wax dëgg yàlla dama dama dama dépassé ma ne ko man su ma amul dërëm yónnee ko sama yaay man ma toog moom ma gën a ndeysaan ci la ma bere ma continuer nak di suivre ci internet bi di gëna mm-hmm. jang ci internet bi mm-hmm. di di di di abonné ci ay page am doole ngir mm-hmm. continuer sama mecc ci diko jangat jàngaat ba sama bët tay suma sor ay ay verre tay bu meuk tay grâce à xol bëri bi ci internet bi moko ko kon dal man bu ma jégee sa parcours euh, da nga télé ñëmé responsabilité bu baax baax baax lol mo la gëna duggal ci métier bi parce que bi ma teree tamit dañ mo waxoon ne da ngay tok ci buntu place bi comme say morom may leen noonu noonu noonu da buntu place euh, parce que tok ci mbedd mi dafa yomb do fay location doo fay dara

ma lekk ci ba suur te yónnee sama yaay li ma yor. macha allah parcours bi def na jaar na yoon daw na yaram léegi tey ñu ñëw fekk la fii rue 29 angle 20 ñu ñëw fekk la sa atelier. Hmm? waa aja kon dama ci jaar jaar bi xuusal. Hmm? mati ci la ma woowee téléphone bi ma woowee téléphone ne ma yow nekkoo ku war a maa ngi dem ba tollu côté Diass. Diass nga tolloon. laa tolloon pour demaat pour demaat quatrième fois. Mhm. mat ne ma dëppal. Mhm. laa dëppee ma léegi suba. dana am ku la woo téléphone. bokk mhm. ci nguur gi. Mhm. bi ma ko waxee tamit sama xel nga xel ñaar ndax dana am. Mhm, wala du am. après ndekete ndekete loolu dana am. xaar ko bi ma woowee téléphone daal ne ma Assane Dieng ma ne ko ah ma ne ko mu ne ma mu ne ma mëti mëti trois moo ñu boole. waaw. ma ne ko waa baax na léegi nag mu ne ma léegi dama soxla suba na nga tey na nga ñëw Fonsi. Fonsi waaw. 11 heures. ci laa demee après ñu def benn discours ak Macky Sall. waaw. mais jamonoy Covid la quoi. jamonoy Covid la. téléphone ngeen déggante Macky wala mi ngi toog. téléphone. par téléphone waaw. Mhm. yàlla dogal ñu waxtaan mu ne léegi na ngeen jàppale booy bi nii parce que ku jar a jàppale la. moom Macky Sall wax loolu. waaw. Mhm. léegi Thérèse lan nga bëgg. Mhm. ma wan ko li may liggéey. wa proposé ko li ma bëgg mu ne ma léegi jamono ji ñu toll nii. Mhm. mënuñu am kenn koo xam ne mën nañu ko defal eddu quoi. waaw boobu ci Covid bi lañ toll. ci Covid bi la quoi. Mhm. mais mën fere su fekkee bëgg nga. Mhm. ñu lebal la xaalis pour nga dem liggéey su Covid bi passé dañ fexe nu la Macky Sall recevoir. yàlla dogal ñu topp ci procédure bi li li ko gën a yombal nag mooy lépp lu ma treize fay am naa ko. mu ma woo. mu lay woo export nee na yaa reçu de commerce nanga lu mu. lu mu la laaj ak am nga ko. lu mu uh-huh. ko génne te tegal ko ci kaw. tegal ko lépp tegal allah. léegi ci lan euh, tàmbali. Uh-huh. ba yàlla dogal mu boole ma ak benn banque bu nekk INSEC. INSEC. Uh-huh. mu waaw ñoom la ma booleel ñoom ñoo fexe ba yàlla dogal prêt bi génn ñu lebal ma xaalis pour ma liggéey. mais prêt bi est que ñuy seetaan mun nañ xam tamit somme bi ñaata la woon. wax naa ko fu ne. ñaata la woon. Euh, xam nga somme bi 5 millions la woon. 5 millions la woon. mais 5 millions ci procédure banque. Mhm. moom la ñuy bind mais du ko mat. du ko mat. non non du ko mat day am prêt dossier am nangam sangam am nangam sangam am forêt garante. Mhm. nga ci génne parce que mais li ma bëgg a wax foofu noonu pour samay mbokk yoo nga xam ñoo koy déglu yaakaar dana may xaalis kenn mayu ma xaalis uh-huh. dan ma lebal xaalis may liggéey di fay yéen a seen caméra mu ngi nii su ngeen paree ngeen wan adduna bi li fi nekk ci esogu daal uh-huh. te mën ta jar waaw léegi euh, buñ la joxee fond boobu lan nga ci tàmbali ñu ñu ñu xuus ci mbécc mi loo ci tàmbali li ma ci tàmbali mooy dan ne ma demal wuti place waaw parce que nekku moon fii mm-hmm. dan ma demal wuti soo wutee place somme bi avant ma ciy laal dërëm te nañ ko lu ma 3 mois. 3 mois xam ne place laay wut ak amu euh, amu place di wut place. ba pare uh-huh. wëlbatiku di fay. ah loolu métti na. wëlbatiku loolu métti na. bi yàlla dogalee man place fii ku fi yàlla dogaloon nga xamoon fi tamit. Uh-huh. xam ne wax dëgg yàlla ni meloon ak ni mel léegi du benn. waaw nan la njëkkoon mel nga expliqué ñu. ma ci feree fa avant ma fiy dugg xaaj bi ma joxoon xaaj bi. fere nga ci. dem na ci place bi. xottu place te laa wax waxuma matériel de. xottu place hmm? dem na ci xottu place yi ngir mu mel nii présentable nii ngir nit ci duggee man a mën a du ngeen du ngeen duggee lu ngeen soxla lépp am na fi. Hmm. lépp luy nuy naan ak luy lekk lépp am kon li ma bu ma la déggee daal li ñu la jox pere doy woon pour sa liggéey. non xam nga nit ki moom ku amul bay dugg ci gaal. Hmm. lépp lu la jox war nga ko mën a doyloo. waaw war nga ko mën a doyloo ci yoon. su fekkee ne damay doyuma man jaam laa. suñu la joxoon un million sax. baax na. Mhm. parce que amoo ko moo tax nga dugg ci gàtt. Mhm. ndem jox nañ loo xam ne joxuñu ko say morom. Mhm. te gënuma ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ñoo ma gën a mérito te mënuñu fa àgg. kon li yàlla su yàlla dogalee ma wax. tey ba yàlla dogal tey ma àgg foofu ba jot ca. dama leen sant ñoom ña ko jox. ña la ko jox. xarab mu du ma du ma leen xarab benn yoon. lenn laa leen di ñaan. muy lan muy suñ ma mënee jàppale jàppale samay morom parce que nit ki suñ ko joxee. alal ci mhm. alal gi ko jox day fay su weer dee ak weer ak morom ji ni ni mu jege ñee mu jege nañ ko mën a ci publicité publicité bu mooy jaay mu mën a jaar su jaree mu mën a fay ba ëllëg si bu am benn jafe jafe ci problème xaalis ba kon yow bu ma la déggee euh, publicité bi ak jàppale bi dafa des publicité bi des na mhm. parce que suñ la bàyyi ak sa waggi neen rek ak sa loxoy neen ngay liggéey di dem te li ngay liggéey amoo foo jaay tey loolu normalement tey man war naa ci sénégalais yi nga xam ne am ci àdduna bi dem kon mosoo dem foire non mosuma dem foire ma dem foire. te foire boobu noonu tey mën na ma dimbale tey li ngeen fekk nii ci ci daal la tey tey du fi nekk su fekkoon ne maa ngi dem foire lépp lu fi nekk si daal dama koy takk bàyyi fa ay emploi ñuy liggéey ma ma takk dem jaayi. su ma demee jeexal su ma dikkee fekkaat leen ci li liggéey nga xam ne xaalis day rouler 24 heures sur 24 nga xam da nga a am loo fayee am loo fay atullee mhm. am loo mën a dundal dundal le sa njaboot teewul nga am loo fay banque bi mais suba da ngay am jafe-jafe pour nga fay banque bi parce que doo jaay doo jaay màggal gi jaayuma loo xam mën na fay mën na fay atullee bi mhm. moo tax nga mhm. gi neex na wala tabaski neex na daal lii ngeen gis nii daal li tabaski la woon mu des ba léegi barke Seexul Xaadim ma yaakaar su ma ci liggéey 500 paires jaayuma jaayuma ci 100 paires jaayoo 100 paires barke alxuraanu karim kon kooku su bëggee fay naka lay fayee wala bu tikkuwaat ma demaat lebaat xaalis sama grand frère kooku ne nekkul pere mm-hmm. pour ma liggéey wàccaayu màggal bi moom lañ fekk nii ma jël nii yëpp moom nga del dal yi jarul mm-hmm. loolu neex na neexul ci xol moom neexul ci xol parce que adduna bi da yaakaar ne dañ may xaalis fekk mooy ñu ma xaalis mm-hmm. dan maa lebal fere su weer dee damay fay li may fay fere di ko fay ëtlee am na ay kilifa yoo xam su ma leen ko waxee danaan maa lii nit mënu ko mënu ko parce boo xam weer day dee mënoo jaay cent mille te weer su dee ngay fay loo xam ne jege na 500000. kon place bi ñaata ngay fay fii. non loolu kenn du ko wax pourquoi pas. Mhm. jaru ko parce que am na yoo xam ne même day fay banque bi sa sa jëru mu di wax. dëgg la mais l'essentiel li ma la wax nii moo am. mais est ce que jotul tey euh, mati 3 pomme bi nga xam ne moom moo sa manager. waaw 13 fay bi mu la booleloon. mu demaat ki nga xam ne moom mooy président nga dem présenté ko say dal ñoom ñu dimbali la foofu tamit. 13 ma mati 3 pomme jàpp na ci. Mhm. bugaan ngay dañu jàpp na ci. Mhm. bugaan dem naa ci këram jaay ko ay dàll mu jënd ko xaalis bëri partagé ko page Facebook am moment noonu dàll yi ma dese woon nga xam ne matoon na ay 50 paires ay 100 paires yooyu jaay naa ko prix bu baax parce que moom da ko publier ba pare bind ci loo xam ne wax dëgg yàlla lu rafet la mhm. mati trois pommes du jóg ci samay dàll des fois su ma paree ay dàll dama koy envoyé fii ba fa mu nekk. ba fa nekk dugal partage ko ci ay sitam ak yëpp. Mhm. chaque jour nit woo ma ne mati trois pommes ci ci ci sidam dama cee bëgg. pourquoi pas Macky Sall wata mëna sol sama dal xam ñu xam dal bi di jën création mais audience boobu tamit foog foog nga lijjanti waat ko pour mën dem palais ah xanaa mati 3 pom bi la mati 3 pom nekku fi nekku fi fi mais ay link yo xam ne la fa non link yooyu pour sa dal dem ba palais non link yooyu pour man mu ngi ci parce que li tax mu ngi ci mhm. mati fu mu xam ne fii buntu baax la mu ngay fëgg pour man pour yow voilà fi jënd dal 100 francs teg nee na ma xaw ma li lim bind ci ci Facebook am. Facebook am ndeysaan moo tax ma ñëw jënd daal bi mu ñëw jënd daal cent mille francs la yëkkati jox ma kon kon si jàpp. mais est que fii sa fief muy Medina fii est que ñu ngi gis seen bopp ci ci dàll yi ñu ngi ñëw. Medina fii nii. waaw ku fi dugg da nga gis sa bopp. mais mais nag li ma man mooy. Hmm? am naa ay dàll. maa ngi koy partage Facebook maa ngi koy maa ngi koy dugal fépp pour réseaux sociaux yi pour jaay. yaa ngi ko fay pour jaay lépp lu tamit pour jaay am naa ko pour jaay. mais duma tamit duma daw tamit dem nan kaay ma jale leen. waaye di nga xam sa produit. dal bi ni so demone bitim rew hmm. bu ko faa jënd dana la ko jaay lo xamne dana ëpp 150000 so diké ma jaay ko 25000 xana kon lolu dal bi naka la tuddu ki bu ma jumul mooy Aldon. Aldon waaw waaw. li ki wir la. hmm xolal xolal matière bi xool la. Mhm. li ministre ak député yi ku génn dem jënd ko bitim rew so démé barké alcorane da nga ko jënd lu ëpp 150 000. Mhm. man ma liggéey ko ba melni gëna ni dëgër. ma garanté ko wallaahi soo ko solee un an mu yàqu soo dégg mu dellu sa xaalis. dëgg la. barke alxuraan un an soo sa xaalis te maa ngi koy jaay 25000. 25000 nga bari na. léegi Assane bu ñu génnee foofu dañu bëgg a xam. yenn xeetu chaussure ngay defar. yëpp. parce que dañu gis euh, homme femme enfant. lépp lépp ngay defar. bàyyiwuma benn dàll buy liggéey ba ci ban matière ngay defaree tamit. cuir. cuir ngay defaree. waaw waaw. Assane bi ñu génnee foofu tamit gis nañ métier mi. gis nañ ku ne di defar ay coordonneurs yi. métier mi euh, actuellement dangay gis ku nekk jóge fële uude bi uude sàngam ñii di ñëw ñoo xam ne di commandé ay dàll. te duñu coordonné. ñëw yow ñooñu naka ngay gisee ñooñu. leen nag danaa ko ni nga xam ne dañuy ñëw ràngu rek pour dem jaay danaa wax lenn tamit mhm. yàlla suñu borom mooy dogal te mooy bind mhm. te képp kum bindal la bind ak sa wërsëg mhm. képp ku man a jënd daal dem jaay am ci dara de jëndal dem jaay am ci dara uude ba nga xam ne tamit jàngut métier daa ñëw di di di ba yàlla dogal mu mën métier am da nga koy da nga koy da nga koy da ko koy nangul koy nangul su ma sañoon uude yëpp am xaalis barke alxuraanu karim su dëgg yàlla ma farante dëgg la rawal yéene naa leen ñoom ñëpp ñu xaalis yéene tamit lii ñu ma defal ba tax tey ma place bii ñu defal ko sama mbokk Fuuta yëpp te képp ku ko si ku defal tamit na nga fas yéenee am jomi fay. Mm-hmm. ba keroog yàlla di dogal loolu la may dogal man de maa ngi fay. yaa ngi fay te naa ci rasulullahi ne damaa bëgg a fay ba mu jeex ma jëlaat wala su jëlaat tamit ma fay ba du ma kenn dërëm ëllëg xam sama loxo bi man sama moom ginnaaw set wicc lenn rek moo ma ci xaw a naqari mooy li nga xam ne. muy lan say mbokk duñu yaakaar ne dan dan dan laa may xaalis. Mhm. fekk may ñëw xaalis parce que ñu nañ somme bi. pare lañ la defal ni edd edd nag su suñ ko waxee day nuru may. Mhm. te nekkul may pere la. loolu rek la am loo xam ne maa ngi koy leeral ba ñëpp dégg ne kenn mayuma ñaar dërëm dan maa lebal su weer dee damay liggéey di fay. macha allah dégg nañ message bi jàll na mais ci fan yële muy Covid bi am na ay ay aides fi defoon ministre de l' artisanat est ce loolu yéen jot ngeen ci wala jotoo leen ci. am na ñu bëri ñu jot waaye man lii la ma doon xaaree loolu moo tax jot ma ci woon. loolu bind woon nga waaye jotuma woon na yàlla lii moo lii doon ñëw nii moo taxoon mu ne Assane jot wala. mais est ce que jotul tey yenn coordonnateurs yi am carte artisanat parce que tamit pour foire yi reconnaître la ah, am nga lépp am nga lépp macha allah mais da ngay lancer appel parce que gis nañ fi coordonnées yoo xam ne tamit dañuy toog fi ñu toog rek naan état bi defal ñu li état bi defal ñu li jotuñu marché état parce que état bala mu lay jox xaalis foog nga am ay papiers yu leer comme yow am carte artisanat li nga xam ne ministre bi dina la mën a reconnaître. lii nit mënu ko am te amul carte yu carte yu normal. Mhm. lii lan la Dieng création made Sénégal dama ko fayal droit d'auteur. droit d'auteur nga ko fayal. kon sama dañ ko légaliser. Mhm. dañ ko nangu ba pare kon man bokkuma ci ñi nga xam asan ah, bu ñu génnee foofu dañu ñëw ci matériel yi nga xam ne moom ngeen ba xam am ko jafe na wala jafewul li gëna li gëna doy war hmm moy matériel bo xamne mu ngi doon jaar 6500 hmm jamono ji 13000 lay jaar ci digënté 1 mois ci 1 mois lo différence bi ñaata la bari na trop 6500 la doon jaar hmm. muy protocole protocole muy doon col bi hmm 6500 la doon jaar léegi dem na ba treize mille. c'est cher. ci un mois. Hmm. kilo der mu nga am na am na yu doon jar quatre mille. quatre mille quatre cinq cent léegi dem na ba ci douze mille. Hmm. loolu du yoon. am na benn weñ bi nekk ci biir ci biir daal bi ñu ko doon ñu ko doon jaayee juróomi dërëm jamono ji mu ngi jar cent cinquante. Hmm. kooku cher un mois. te léegi lépp lu ñuy liggéey ñun dañ koy yokk. te man dàll bii nga xam ne maa ngi ko doon liggéey depuis bu yàgg ba léegi di ko jaayee 5000 francs mhm. léegi lu muy jar yokku depuis ba léegi ba léegi babut bii nga xam ne maa ngi ko doon jaayee 10 mille francs uh-huh. ba léegi mënut a yokk mu ngi ci piram ba léegi ci ba léegi parce que soo ko yokkee ñu ñëwee la ko fi ñukk mhm. bala bàyyi ko fi nga ñëw ci alden bi alden bi su dee toile bi maa ngi ko doon jaayee 15000 su dee bii maa ngi koy jaayee 25000 uh-huh. yokkuwul ba léegi prix bu doon jaar moom lay jaar ba léegi nii. moom lay jaar ba léegi. waaw léegi kon ñun fan lañ jëm. mais loolu lan mooy problème bi état bi moo yokk affaire bi wala nu mu demee. soo demee ci ñuy ñiy ma te dana naan état bi mooy yokk la ñu daan fay kon léegi mënatuñoo jaay lañ daan jaay te ñun mënuñ ci dara. mënoo lañ ci dara. parce que far far ko jënd ko. Mm-hmm. soo ko jënd doo liggéey te soo liggéeyul doo fay banque bi. doo fay banque bi. doo fay place bi. Mhm. su yàggee da ngay génn atelier bi dem banque bi leen topp ba pare yow nga yàqule te tamit soo yàqulee mhm. sa way dootul fay ba keroog yomal xiyam yomal xiyam jàppale nañ ko ay million mu yàqu ci ay mu yàqu ci ay weer wala mu caaxaane ko ci ay weer dem taxawal yi loolu def naa wal way bu budul fay la doo déglu ma ba àdduna bi mhm. buftu loolu moom dootu dañ dëgg la même soo amoon xaalis bu jeex tamit way boobu sa saa bu xuloog nit mu wax la mu wax la ko man loolu damay tëdd ba guddi mais xalaat na yàlla tere yàlla bu mu am bis bu yàlla dogaloon parce que am ak ñàkk ñoo am dëgg la bis bu yàlla dogaloon tey ma toog tey ba amatuma dara mhm. man fan laa jëm dëgg la parce que daan ma ku ma xulool du ma a wax ak dëgg la doo ma taxaw défendre sama bopp parce que loo wax lu ñu wax la baat boo xam ne man mu lay solale mhm. yàlla yàlla dimbale ba loolu bu mu am dëgg la daal yi ngay defar yu góor yi yu jigéen yi ban moo ci gën a jar ban nga ciy gën a gis sa bopp jamono ju ñu toll nii benn doxu ci ah Assane loolu doy na war dañ ko maye la daal di tabaski mu ngi fi des na xaajul. xaajul ba léegi 500 paires laa ci liggéeyoon jaayuma ci li ngeen fekk fi ci daal di jigéen mat na 300 paires ci màggal gi laa ko liggéey jaayuma ci 50 paires. loolu doy na war ah, loolu kay kon kay wax dëgg yàlla euh, benn doxul. benn doxul. ah déedéet. Assane say dàll est-ce que dina génn euh, extérieur. comme naka. di dem yóbbu euh, bitim réew. di ko li foofu man génn gu ma dem bitim réew ku génn bitim réew kay xanaa ñi jënd ñoo ko yóbbu waaye man. waaw am na ñoo xam ne ñi ngi liggéey fii Assane te seen seen matière ku ci mel ni Demba ay matière am mi ngi dem Europe te bu ko neexee fii lay toog. ko yóbbul. ah dafa am ñu koy yóbbul di ko jaayal rek comme nit ñi mun na ñëw jënd. dem jaay Europe. man awma loolu man daal li ma am mooy nit ñëw jënd 5 paires wala 10 paires wala jënd euh, tant de paires xaw ma xaw ma mu koy yóbbu. Hmm. waaye licencié client boo xam ne client fixe boo ay 100 paires ki moom aw ma ko amoon naa ko ay jamono malien yi. maliens yi. daan nañ jënd ci man 1000 paires. Mm-hmm. te financement bi tey bi mu ko jël dama yaakaaroon ne loola day continuer bi ma jëlee financement bi ci mois boobu ci lañ tëj frontière Mali ak Sénégal. mais frontière bi tëj na leen. waaw bi ñu ko tijjee bi ñu ko tijjee. Mm-hmm. maliens yi ñoom bi ñu tëjee frontière bi est-ce que xam ne xàcc boo gis. wërsëg bo dëgg la. bi ñu tëjee frontière bi. Uh-huh. maliens yi ñoom dañoo trouvé dem Turquie. dem di def defari dàll foofu. non dem di jëndi foofu Turquie ak yi. bàyyi dal urai, le urai yi moom tëj frontière bi. moo leen rey. rey na ñëpp. Mhm. ude kenn dox leen ci. ay Guinéen ñoo fi jën te Guinéen yi peut-être Tabaski ak Tabaski Korité lay ñëw su Tabaski Korité baasee Guinéen moom pour nga gis ko fi problème lay problème la kon daal yéen a ngi difficulté bu metti ci métier mi. man nga liggéey mhm. ba tax ma amul financement. Mhm. financement moom su ma ko fayee ba yàlla dogal mu jeex tàkk ci kàddu suñu borom. Mhm. su mu fekkee lii mooy kon ne ma jaay place bi ma man dem Modou Modou ji. dem Modou Modou ji. ah parce que bi may ubbi entreprise dama yaakaar ne entreprise su ma ko ubbee ak la may wuti bitim réew danaa ko mën a. di nga ko am fii Sénégal mais liggéey te doo jaay soo ko defee tamit sa sëñ bi kañ ngay kañ ngay am kër kañ ngay tabax kër kañ ngay daw soo. waaw loolu moom métti na trop. kañ kañ kañ koy def. dëgg la xamuloo dëgg la. parce que tey su fekkoon tey da ngay liggéey liggéey bi ngay liggéey mu dox masalla ba yow yëgoo fay banque mhm. yëgoo fay atelier yaa ngi liggéey yaa ngi am xaal yaa ngi def li nga war def yëpp di war di am oto ma mën a jënd oto jënd oto mhm. mën a tabax kër tabax kër du soxla ngay dem fenn mais comme que sun artisanat moom wax dëgg yàlla su dee téeméeri nit benn nit nga ci gis ne kii mhm. exemplaire la te kooka day am bras droit bu nekk ci ginnaawam koy jàppale mu mën a exporter ay ay dàllam ay dàllam ñu mën a génn soo amul loolu tamit yaaram da ngay dund ba dee rek. Eh, kon daal bu ma la déggee eh, yëf yi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. non waxuma foofu de. fan waxee yow. su fi waxee mooy xam nga kumba am ndey kumba amul ndey mooy daa am ñuy jàppale. ñun ak ñun dul jàppale. non non xam nga tey su tey su ma juddoo tey ci boo xam ne am nañu xaalis. waaw. sama famille man maa jàppale ma mën a am visa. Mhm. mën a dem ci foire yi. maa de feene feen loolu du ku ma de ku am de ku ma jàppale la boo xam ne ci famille la xëj ci famille la xëj mais soo nekkee soo nekkee mënu wax baa dolloo faqeer laa mën a wax mm-hmm. faqeer bu mel ni man nga xam ne ñàkk xaalis moo tax nga doon dugg gaal di dem di dugg gaal di ñëwaat di ñëwaat di ñëwaat su su manoon am visa du dugg gaal su mënoon am visa dana am visa dem ci foire yi dem jaay la boppam te kenn ko yóbbu mais est-ce que jotul tey ngeen lance appel seen ministre tutelle ministre de l'artisanat laa lancer appel pour ñu ñëw jàpp ci combat bi. non lancer nañ ko kay parce que am nañ yoo xam ne ci ude la mhm. ngi doxal ñu ñu ngi nekk ci mais association boobu est ngi dox. non mu ngi dox kay mu ngi dox kay. Ah. man mais man nag bokkuma ci woon moo tax. bokkoo ci woon. waaw gis ñu gis tamit euh, kenn du génn tamit te duñu wax dugg nañ ci place bi gis sa photo ak sëñ Mountakha sa relation ak sëñ muntaxa nañ la bëgg a laaj <laughs> avant ñu tëj. <laughs> comme waxtu bi mi ngi ñuy waaj a tënk. <laughs> sa diggante ak sëñ taxa foog nga leeral ko jàmm ñi ñu lay seetaan tamit. sëñ Mountakha sëñ Mountakha yow mooy lépp ci man. Ah. mooy lépp ci man. dama samay rawatina daw sax bari suñu tubaab. waaw maa ngi tudd sëñ Mountakha rek. ci moom laa jébalu. est-ce que. <laughs> mooy sama sëriñ. kenn xamu ko boobu dañ doon dañ doon wax naan eh, sëriñ bi dafa ndur ak bàyyi ñes. ndeysaan dama wax naa ma sa bi dafa ndoog Baye Niass mhm. te bi ma koy tàggu man yorob bi ma koy tàggu bi ma amee passeport dem di ko tàggu ji pour wax doomam waaw ne ko mu mu mu mu ñaanal ma poroxaan laa ko fekk ma liggéey ko ay ay ay daali kawas ndeysaan mu ne ma kon kii bi ñëwagul ma ne ko ñëwagul de mu ne ah man yaakaar naa ñëw na ba pare ndeysaan barke alxuraanu karim ci noonu ci laa ñëwee yàlla dogal ñuy toog nii di waxtaan ci problème gaale ba mu ma ne man de Baye Fall dama bëgg a dama bëgg dama bëgg a takkaat nii. ndeysaan ma takkaat ma waaw ñu def émission gars yi lancé benn euh, am na ku nekkoon TFM te waxoon ne ni Yirim Seck may na ko 400000 ak xarulaadum ak yooyu. waaw après ci la lancé benn numéro ci ci internet bi. Mm-hmm. Euh, ma gis ko contact leen mu nekk sunu gaal. 24 24. Mm-hmm. ci laa fa def émission boo xam bi ma ko defee ci jour bi ci la ci. avant muy mat am na un million. un million ndeysaan. moom directeur Sunugal boobu ci la ko amee ay trophée yu bëree bëri bëri. dëgg la te loolu Simon Ndaxa moo ko waxoon ci la xaay bi tamit ñëwee après ci la lépp ñëwee ma xam ne Serigne Touba kon daal bu ma la déggee mun Mountakha mooy sa lépp. bi tamit mm. si Simon Ndaxa dafa yebal doom moom ñëw fi moo ko bisi. ah kon loolu lu rëy la. waaw moo moo moo ko bisi loolu moo tax man euh, xol bi fees na daal comme euh, temps bi xoj nañu ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. di ko gërëm di ko xam ne nag li ma defal yàlla na yàlla dogal ñu bëri am ko. Mhm. Euh, parce que tamit yéen ak samay morom yu bëree bëree bëri. Mhm. parce que man kese du ma ude ci ci Medina bi. su ma sañoon tamit ñi ma jàppale ba tax tey ma am place bi ñu jàppale samay morom yu bëri. am na tamit ñoo xam ne ñu ma dàq liggéey foofu la. amna ko ku ñu wax Samba jeng sama rek la ñoo bokk ndey ak baay maa ko jàngal métier hmm. jamono ji toll nii moom dàq liggéey bàcc seen xadim am na koo xam ne mu nga atelier bima ma won woon hmm. te wallaahi jamono ji moom a dàq liggéey ak ñu bëree bëree bëri ñoo xamne ñu ngi atelier bob non ak ñu bëri bi ñoo xamne ne ñu nga Dakar da nga ñak ñaan la yalla suñu borom jàppale amin amin suñu borom defal tawfiq amin yalla suñu borom may lu kawe seen jot su am gi fi mo gën ñom yalla suñu borom may fi su fekkee génn gi gën tamit yàlla suñu borom génne ñu am le parce que nit dafa wara am sutur la lu muy suturloo su ko amul rek euh, pour mu dugg ci njaaxum day yomb. dëgg la. parce que ku amul jot ku ne ne doo sàcc. ndeysaan. ku amul jot ku ne doo dem caaxaane bi ku ñàkk jot tamit doo dem baale man fii dama fiy nekk ba 2 heures du matin 3 heures du matin. ndeysaan. barke Seydou Khadim ubbi naa ko ba jamono ji te nii ci mois bi passé ci la mat un an mosuma fee xëy si. 8 heures 7 mm. heures du matin 6 heures 6 heures du matin laa fi xëy si. ndeysaan. kon kooku noonu yaakaar naa amul jotu dem dem boîte. 10 ans ngi ni sama tank tegul boîte. Mhm. parce que so bëggee yor yaay. Mhm. yor ak njaboot yor lepp yor lepp do am jot. Mhm. pour def yenn asan euh, ba légui dañuy ñëwaat ci consommation local bi da ngay gis euh, sénégalais dañuy gis sen dal mu dëgër këcc ñuy dem ba Europe di fa jënd ay dal lool lan moy problème bi. sénégalais gëmul sénégalais mbokam hmm sénégalais xamul lu mu gëm chinois bii. man dama daan réparé daal chinois léegi bàyyi naa réparé daal chinois. Mhm. barke alxuraan lu tax. lu tax mooy chinois da nga jënd tey suba ginnaaw soo mu yàqu nga mën a ñëw jënd sama dàll man koo sol une semaine wala ay mois yu bëree bëri bëri xool sax doo ko si gis. mais loolu dafa nekk jafe-jafe bu doy waar si seen métier. ñoo jaay moo tax jaraluma. su nit ñëwoon fii lal daal chinois léegi nii léegi mu jaay lim yor yëpp ba mu jeex man ma nekk fii nii gën ko dëgër la gën koo baax la gën ko garanti ma lay garanti sama daal soo ko jëndee soo ko solee un an su yàqu soo dikkee ma delloo la sa daal. Mhm. te pour ma jaay problème la. mas naa liggéey benn daal boo xam ne a laa ko jaay benn nit. Mhm. ma ko jaayee moom ku dëkk ci kër ga ma dëkkoon moo doon xew mariage. Mhm. ma fa man dem jënd daal bi Sandaga man 5000 laa ko jaayee. te yow yaa liggéey daal bi te maa liggéey daal bi. sinon ma ko jaayee daal bi mu duggee bi mu def faux pas ci bi mu wàcc bi ko jëkkër ji di wàccee ci taxi bi. ci la daal bi foofu la taxaw ñu indi ma daal bi ma dayaat ko jox ko mu door maa dox. waaw ban appel nga ci lancé rek loolu. li ma ci appel mooy sénégalais nan gëm seen i moromi sénégalais. Mhm. nan gëm made in man de sama lii may liggéey nii. Mhm. yaa xool Dieng création made in Sénégal pourquoi pas nga gëm made in Italie Jordan. Mhm. Jordan liggéeyut daal. dëgg la tur bi la rek la yor rek dem def ko ci ay daal. te jamono yu toll nii boo bokk na ci daal yi gën a seer ci àdduna bi. ci àdduna bi pourquoi pas Dieng création mii ni nga xam moom mooy liggéey mooy defar lépp ba pare gëmoo ko. du lan moo tax gëmoo sa bopp. gëmoo sa war a gëm suñu bopp gëm suñu doomi réew. Mhm. li ñuy liggéey fii lañ koy liggéey te gisoo barke alxuraan karim dàll yi nekkee fii siin. waaw damay abonné ci ay sites yu bari mhm. am na dàll yoo xam ne fii nii xele yu ndaw yi tuuti yi ñoo koy liggéey. chinois ca siin mag ñi duñu liggéey dàll yi. ni ñuy liggéey daal yu baax noonu liggéey noonu lay liggéey dàll yu bon xale ñoo liggéey daal yu bon yi mag ñi liggéey daal yu baax lan moo tax ñun mënuñ mën mën mënuñoo gëm pourquoi pas ministre yi Mm-hmm. wala député yi Macky Sall man leen imposé ñuy consommer local sol yéré Sénégal fi sol dàll sénégalais fi suñu ko défé amna ñak bu défon lool wa ah, bo démé amna wa ah, bu ko def ba sonjo mm-hmm, lan mo ñaw ñu sonjo dafa dem ba nek nit ki di sol. yéré bo xamné mom la tax ñaan ko am sey tuddee ko bopam tuddee ko bopam mu dem ba siw ba Sénégal gi sax ñoko gëna gën ñoo ëpp lu ko sol ni dëkk boobu non pourquoi pas Sénégal Sénégal bala ay complexe ñoo fi nekk bala ngaa gën a gën a gën a bala ngaa gën a am lu la métti mhm. ni sol cousine aw tàngaay xoj ba ca baat ba karawaatu ba ba ba du ma noyyi ba du ma doon noyyi ay dàll yoo xam ne Ousmane Sonko mhm. man bokk naa ci ko waxoon ne leen leen daane Casamance mhm. li li taxoon mu xam yi mu soloon dafa tàng loolu ko la soo ñàkkee ñàkk bi du ko naan waaw maa ko wax nit la parce que man ak ak nit dof ñooy ànd. moom tout récemment daaw dem na village jënd fa ay dàll. ñëw na ci man jënd fa ay daal waaw man maa ko wax ci man la njëkkee. ci yow la njëkkee loolu loolu bi ma ko waxee. Mhm. loolu ci man la njëkkee loolu noonu loolu mu lancé woon noonu. Mhm. man maa tax ñu lancé ko. waaw kon Assane ñu bàyyi la nga tëj rek. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. sant yàlla bu baax a baax a baax di xamal tamit samay mbokki uure. na leen jàppale. nañ leen jàppale nañ jàppale matériel bi seer na lool ba àgg ci jéggi dayoo. Mm-hmm. am na boo yoo xam fi toll suñu yoree junni mënuñoo liggéey man bu njëkk mas naa jógee tabaski Jurbel sans patron bàyyi fi ay restaurant toile ak yooyu noonu mm-hmm. restaurant toile yooyu mu fi bàyyi ci laa kolo kolo bi may dikk ma añ bi ma añee danaa may 250 ma dem añi billaahi wal kitaab bi ci sama bagage si patron ci laa taqalee ba am 5 paires 5 paires bi ma ko jaayee 5000 la 5000 yooyu dem na ba jur laa la wax nii lu mat 1 million. Mm-hmm. tam kon matériel bu seer su démé ba yow mënatoo yor 20000 francs soo amé mëno tambli mëno tambli ay ay dal mhm. c'est parce que loolu metti na lu daan jar 6000 4500 la won jar ñu yokk 6000 légui mu ngi ci 13000 kon nak wax deug yalla nañ jappalé suñu mbokk yi na nattu bi nak metti na liko metti moy nguur gi lan wax né mom mo tek ay pourcentage yoo xam ne daa métti mhm. ci doñ mayé bagage yi ni indee yoy non kon nguur gi nga xamné mom mom mo ñuy lif yëf tamit ñi indi matériel yi nan leen jimu oyfal oyofal mhm. seen euh, li ñuy indi ngir ñun ñu mën a am lu ñu mën a liggéey ngir mën a jëriñ suñu waajur wasalaam. jërëjëf euh, Assane waxtaan wi neex na xuus nañ ci lu bari ñu ngi lay remercier bu baax Dak Médina mi ngi lay remercier kon euh, chers internautes Dak Artisanat lii la leen indiloon ci jeune entrepreneur bi nga xam ni moo nekk fii ci rue 29 angle 20 tudd Assane Dieng création waxtaan nag nag waxtaan bu xóot xam nga day lu dugg ci émission bi rek ngeen gis ngeen seetaanal seen bopp. kon du ma du euh, tëj nag te remercier ma sama caméraman bu ñaawul bi muy Fatima di remercier Malick Ba ak Lamine Koli di remercier waa Dak Médina yëpp di leen wax prochaine fois ci Dak Médina jërë ngeen jëf.